l'évaluation de les réussite de monsieur le président de la république man mën naa leen ci wax benn rek boo xam ni dama ko fekkee dama ko dund mooy le problème de la Gambie vous avez un président de la république hors pair billaay maa ko wax Sénégal bu amoon beneen président ci heure yooyu leneen la ñuy wax il a géré la situation avec tact avec intelligence et courage moo tax benn bal takkul bal takkul moo tax on ne s'en pas compte mais c'est un exploit extraordinaire parce que maa ngi woon ci wetam j'ai vécu bu duloon moom musibaam donc pour wax leen ni il a fait quelque chose d'extraordinaire non seulement pour le Sénégal pour la sous-région et pour l'Afrique et même pas et pourquoi pas le monde donc jërë jàppale la retraité mais nit ku baax rek mooy def li ma li ma kii di def dafa sopp doomi aadama il veut tout faire pour tout le dafa mënul rek mais ñëpp la bëgg a defal ça aussi c'est important et ça c'est son jaar-jaaram la moo tax mu mel noonu nee nañu Macky kaa ngi la était jeune bu gisee benn maire yenu paan bu diis da koy da koy jëlal mais kooku il était kaa ngi il le faisait xalaatuñu dina nekk président donc suñu borom moo ko yaral boppam moo tax mu mel nii. am une vision claire Abdou wax na ko bi muy nekk bi muy wax yoonu yokkute les gens euh, dañ doon wax ni non c'est pas possible mais man maa amoon chance nekk ak moom ci biir oto bi président mi ngi doon wax bu ñu faloo lan la ñu def on était dans la voiture mu ni ma on va faire ceci ma ne ko président affaire bi dafa mel ni dina métti de mu ni ba ñu falo rek et ça c'était en 2010 2011 ñuy wër il a lui il a fait non seulement le tour du Sénégal mais la diaspora il a été il a rencontré les gens loolu moo tax mu indi PUDC le plan d'urgence de développement communautaire waa àll bi waruñu wax dara le président pense à nous qui sommes en brousse nee na dinaa leen indil électricité dinaa leen indil ndox dinaa leen indil ay yoon mais personne ne pensait à di Dieu. ak ay mini ak ay ministre di. mais kan moo ko xalaatoon à l'époque. bul fàtte ministre moi j'avais été à l'époque bi ñu nekkee bi ma nekkee jeune politicien ma dem seeti benn kilifa ma ne ko dem dama bëgg courant Fandène lan la ma tontu ana ñoom Martial lu mu waxoon Martial doo tontu mu ne nañu dajale dëkku Fandène yëpp pour mu am courant keroog dema ko tontu nii. courant bi dinañu fekk fa nekk wala duñu ko am waaye léegi de dafa mel ni ma ngi dem de wala mi ngi raam donc vous allez développer des stratégies comme l'a dit le DG Sirédia ngeen développer des stratégies pour gagner cees moi je suis personnellement je suis un combattant man amul lu may ba may duggee ci combat damay dem rek parce que je suppose que aujourd'hui le ballon est avec moi du ma ko yoree ba pare di caaxaan ba ñu nangu ko damay nangu nekk Cristiano Ronaldo wala Messi rek du ma jël beneen. ñaari ñi ñaari ñëpp.